جزاك يا خليل إبراهيم مولاك خير الجزاء منا دارك أولاك فاهلم بأنك إندي سوردا أبدا وساكرتك في دنيا وأخراك فدم على الصدق والإخلاص مجتهدا في سر والبر كي تنم مسياك géwal looy taxaw yow fëggal sëm dënd ndeyow yaa fi gën géer lu tax ngay selaw géwal looy taxaw yow fëggal sam dënd ndeyow yaa fi gën géer lu tax ngay selaw da ngay rëkk jëf-jël ku gëm wuy si ku lay gànt moo xam xanaa day nelaw la buur yàlla jox soxna seeg ay sëtam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 jasalaa umam jaara moom mang ca kaw ajaayib ajaayib fa akrim biha jasalaa jaara moom mang ca kaw danga nekk alim rafet noo xame danga nekk abid te def nit ku ñëw ca xob jéere mbaa jaaro pere yey peme deful woon takkaayam du koy wàlli xew ca xob mbaa jaaro pere yey peme deful woon takaayam du koy wàlli xew jëfal yàlla yam digle bàyyi tereem la def muy takaayam fu leer moom la aw du kuy denc ab jur di ber bay du leb leeka leb mus la ñaan keeka yiw ca barkem gënee lëm yadaa dem ci cin la xiif gënne mi réew geneen wet la aw ca barkem liggéeyam yadaa dem ci cin la xiif génne réew geneen wet la aw bu yàgga ba jox dongo yaag waa këram tibbal ay dëkkaaleem fu nem ndaw ya aw tasaaroog ndabam yaa waral réew mi tey xamee ful fi xiif te moom fi aw ku añ tey ba suur mbaa nga reer ba suur dangay wax ne maam jaara jaajëf ca kaw ku añ tey ba suur mbaa nga reer ba suur dangay ngay wax ne maam jaara jaajëf ca kaw ku añ tey ba suur mbaa nga reer tey ba suur da wax ne maam jaara jaajëf ca kaw la jëkkoon liggéeyam bu barkeel ba nii di ñeeg fan da bay loof bu wér daanaam da ngaa rot ba feesal mu baawaan ci ñun sedd barkeel ku nen man di raw ndoxum déeg ndoxum taw la dee faa jagoo ndoxum ay nu maa ngi ku nan man di raw gojog baat nga dem rooti def ci bagaan te léeg-léeg nga yaakaar bu tub teen ba daw ca boobe ku daa naan da ngay doy doyal te nun tey ko ci naan da bis mu ñëw ca boobe ku daa naan da doy doyal te nun tey ko ci naan da bis mu ñëw te lii lépp yaa tax nda yaa yor bu wér teraangay mbindéef yéen muñ ak seenu yiw mbalaanam yu barkeel ya tey moonu may dara ak jibaam pees mu def col gu yiw këccoog poqi ak yi lamaam daa jëfoo di wut luñ ca sàngoo te daawuñ ko ñëw këccoog poqe ak yii lamaam daa jëfoo di wut luñ ca sàngoo te daawuñ bu jëkkoon dëkkub lëmb dañu yor malaan ko am aajo sàngo ña des ñoom taxaw bu jëkkoon dëkkub lëmb dañuy yor malaan ko am aajo sàngo ña des ñoom taxaw nga ñëw jóor fi tergaal ñu naa déet nga fab mbasee teg ci sooy ku ney xotti ñëw nga ñëw jóor fi tergaal ñu naa déet nga fab mbasee teg ci sooy ku ney xotti ñëw ca dëkkoom yu barkel ya daa dox fi suuf du moo tax bu nuy dem dañuy toog mu naaw ca dëkkoom yu barkel ya daa dox fi suuf du moo tax bu ñuy dem dañuy toog mu naaw te berkelle mbaam la dee faa tukkee wala mu xëy mu teel lool jël yoon wa dem ku buur du ab dab du war naaru góor du war ci wajang ab doxam sax du gaaw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 tamoo sotti xéewal ba ñuy dox ca kaw la buur yàlla may xeetu yonent bi ci say mbóot ku koy lim lu wax wax taxaw te yaaram mbooloo mi yaa tax nu xam ca njool màkka njool màkka yaay kenn yow nda yaaram mbooloo mi yaa tax ñu xam ca njool màkka njool màkka yaay kenn yow da ngay ña daamam kajoor ak bawal te daa wax ni ñooy buur ci wan yoon ña daa addu kalpe kalor seen moroom di mooy seen boroom ñooña yaa tax ñu ñëw danga fekk ab tool bu sas yépp ne nga bay tool bi bam jeex du lee nu raw borom tool bi daa yor jalaal yor jamaal budul koon liggéey boobu kon daanu caw borom tool bi daa yor jamaal yor jalaal budul koor liggéey boobu kon daanu caw nga ñaan faf mu wàcceel nu leerug jamaal nu ciy xéew lu muy wéy ba faf saa taxaw dogonteeg sa jantum ngëneel bii nu tiim ëllëg bun dajeeg buur mi daanu caw budul koor sa jantum ngëneel bii nu tiim ëllëg bu ndajeek buur mi ndéef daanu caw ndemoo làq laa yi fi leen di wam mat ñi dul gis di yee ñiy nelaw ndemoo làq laa yi fi làddanti leen di wam mat ñi dul gis di yee ñiy nelaw ndemoo saytu sun mbir yi biti te mooy baabullaahi dugal kon ngaraw walaf nee na xabar li xemem ci moom xajul ci manaatax damay faf taxaw di jullee kësalmal ca soppeem banak nabil mustawa moom mi gën koy taxaw dama fas ci saa xol bi canta ngërëm di jox som na jaara ndax maraw dama fas ci saa xol bi canta ngërëm di jox soxna jaara kañaan ndax maraw damay def su may ñaan ci lii dib siyaar jubug mbir yi tey jeeg ëllëg fun taxaw ma taalatee tee nga dalak sa dënd sa géer gi ku koy way lu wax war taxaw subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun alal mursaliina walhamdulillaahi rabbil aalamiin addi sëñ Mbakke Madina